Serigne Abdoul Aziz Al Amin xamoon na ni day dem wóoroon na ko façon bu ne junje na ko ko te loolu ci mayu borom bi la bokk di dem xam ni yaa ngi dem ah. mu di lu diis waaye pexe amul muy lu tiis waaye pexe amul ndax tabaarakallaahu boo xalaatee ñi ci suuf lu ñu la teg ci lu demee noonu nga seet foo koy teg pour muñ ko ñu sant le président de la République Macky sal euh, bu ko deful woon duñu ko sant déplacement te dama am habitude di wax ni mënunoo ànd ak nit nëbbu ko mënunoo contre nit it nëbbu ko moo waral sunu yooni prison yu bari parce que bu ñu lànkee taxaw ca mbedd ma wax ni lànk nañu waaw te ni ko ko yonent bi jàngale savoir dire non quand il le faut ça rehausse la dignité de l'individu yonent bi moo ko wax bu dee lu ñu la teg rekk nga nangu ah ñu laaj la yow ndeke xamoo lu tax yàlla bind la boo nangoo neel nangu naa boo lànkee neel lànk naa moo tax Serigne Abdou mat na léegi juróomi fan ñu tase ci néeg bi jox ko mu lekk kenn mënu ko ko woon defloo waaye bu ma yëkkatee kuddu rekk ni ko may ma jël ko mu jël ko waaye mu wax ni nañu ko may dafa am lu mu bëgg a wax ak man bi ñépp génnee ma tëj bunt bi mu wax ak man li mu war a wax ak man ci famille parce que xam na ni lu ma wax ci kàttanu borom bi dina ko def waaw lu ma sëñ Cheikh Tidiane si ma sa wax def naa ko ngir yàlla ak yaakaar mais bu mu waxee man ci wàllu famille ba noppi mu wax ma ni ma nangeen bàyyi xel président Macky Sall waaw wax ceeg man li mu wax ak man li ca ëpp du lu nuy wax waaye lu ñuy taxawee la waaw mu déplacé ñëw fii këram la ak bokk gi ah dalal xelu njaboot ci la bokk muqaddam yaa ngi fi këru diine yi kenn ku ne wax dëgg yàlla yónnee nga ku la représenté ngir xam ne lu li xew boo nu ko yenulee mu woyof ci ñun ñu di ko seddeel président Macky Sall waaye ñu di ko seddeel taxawaayu ñenn ñu nuy tudd ke ci jiitu di professeur Habib si di doom di rakk Eh, bëggul sax ñu wax taxawaayam waaye bu nu ko deful yàlla jéppinu taxaw na ànd ak ñetti médecin docteur Ndoy docteur Ba docteur saaxo ñooy relevanté di fanaan ci chevet Serigne Abdou bu doon tey xam-xam mooy delloo nit ci sagoom kon Serigne Abdou fii ñu toog lay toog ndax nañu ko taxawoo woon waaw ñu wax ni moom professeur Habib Sy amul heure buñ ko dul woo mu jël otom topp tali bi ñëw léeg-léeg min wi lay jóge Ndakaaru ay deux heures du matin la fiy agsi léeg-léeg la fiy nekk toog ba quatre heures du matin mu jóge fi pour war a daw liggéeyi kooku xam na ki tëdd lu mu doon ci moom booleeg nag médecin yooyu dama leen mujj yërëm démb pour réanimation lanu cay daj wallahi lanu cay daj waaw dañu tës tës tës tës tës tës sëriñ Abdou waxtu wu ma ko ne sëriñ bi sa mission baa ngi lay xaar de mu ni xifeet parce que xam na mission bi mu amee woon lan la waaw te wax naa ci suba biñ koy jullee ma ni amul ku mu rendrul service ci famille bi amul ku mu rendrul service ci diine ji amul ku mu rendrul service ci tariqa bi euh, ma wax ni mu nga tàmbalee ci Serigne Babacar Sy parce que fekkewul jamono Cheikh El Hadj mais rendre na service Serigne Babacar rendre na service Cheikh Hadj Mansour rendre na service Alhaji Abdoul Aziz mi ko defoon loxoom def ko porte parole rendre na service Serigne Mansour si mi daan wax ni Abdoul Aziz mooy sama secrétaire mi sëñ Moustapha si Djamil sëñ Abdou dafa nekk ci daara ji am fukki at moom la defoon ndey jooram moom la defoon confident moom Serigne Moustapha si Djamil yooyu yëpp daje fa tabaarakallaahu ma ni leen nit la woon koo xam ne amul lu ëpp deux heures de sommeil ñaari waxtu façon bu nekk sëñ Cheikh jéem na ko ko récupérer pour di ko tëddloo heure euh, am na jamono sëñ Cheikh daf ko imposé wax ko ni ko vingt deux heures bum la fekkati nga nekk ak ay nit vingt deux heures na fekk nga tëju yaag sa njabootu biir sa soxna ak say doom sëñ bi dafa am kum ci combiné loon di ko téléphoné di ko laaj ndax sëñ Abdou retiré na muy rahmatullah mbay silla mais defu ko lu mat ñaari weer waaw mu ne def dañ ko bëgg a dofloo waaw boobu daal moom mënu ko nañ ko bàyyi ci li mu nekkoon kër gi transformé woon na ko mu nekk milieu intellectuel boo xam ni les plus grands écrivains fii lañ daan tase pendant les vacances ñun daawuñu nelaw guddi amoon na ci un dramaturge bu ñu daan wax Abdou Antaka yoo xam ni toute la nuit dafay fanaane bind fii lañu daan tase ci daara ji booleeg yeneen intellectuels yoo xam ni xamuñu tëdd guddi waaw les plus grands contestataires fii lañu defoon seen base ci kër gi ñun ñoo nu nàmpal moo tax dañu gimmi rek appartenir au front du refus loolu la yàlla dogal tabaarakallaahu moom Serigne Abdou association islamique bu ngeen mës a dégg bu bokkul ci ña ko formé dugg na ci ah tabaarakallaahu loolu la yàlla dogal ci moom